directeur école franco arabe yi nekkee ci bir diwaanu Kaolack moo xam ci public bi ba ci privé bi waajuru ndonga yi jàngalekat yi ak acteurs yi yëngut ci wàllu njàng meek njàngale mi ba ci sax ñi nga xamante ni ba ñu sos bile système fekkee woon nañu ko ñoom ñëpp ñoo joxante woon daje nak ci sem franco arabe sambu Kaolack doon fa amal ab ndaje waxtaan serigne ali Ali Cissé mooy ki jiite kurel gi takkee waajuru ndonga yi ci lycée franco arabe bu Kaolack mu ngay dikkaat ak ñun ci sababu ndaje lii. li nga xam ne mooy daje bi daal bi mooy yombalal xale seenum njàng ñu ak moo waral daal ñu xalaatoon lii xalaat bi nag yàlla dimbale na ma ci man la bàyyi ko ndax man maa daan teewal INAPES foofu ci IA wala CRD bu am rek ma xalaat ne daal euh, problème yi am Sing Sing comme yow yaa ngi koy dund ndax fa ngay jànge xam nga ci dara euh, jéem nañ ci ba tàyyi dem nañ fi ci Serigne bu boba nekkagul maire bam créer créé mu ne na ngeen créer je bu ngeen créer je ma financer len ngeen am car ndax damay bay jënd car rek turu jëndon na car rek lay doon ndax du am ku ko gérer ñu xam ne loolu dëgg la ñu créer je bi je bi euh, docteur mbub moy trésorier bi man may président bi ñu dox loolu car amul ñu tok ay at problème di am ren nag bi école euh, tëj ubbee euh, ñi nga xam ne ñoo am fi euh, BFM bima ma demee ci professeur ci lycée ba mu ne ma 120 dem nañ 120 dem nañ ma xam ne loolu moom du jëm kër te ubbi nañ fa seconde classique ma xam kon jàngoro ji daal Fatick mu ngi ñu yoot ndax Fatick bañ fa ubbee seconde classique wala Franco ba fay mu jëm si bi ma dem ci moom nekkoon nag dama bëgg CM bi ñu def euh, segon, def ko lycée mix ndax mu ne ma ndax lool mëna nek ndax am ngeen site ma ko am nañ site fi mbar yi nek matna matna ñetti classe ñu def ko auteur yalla dimbalé ñu maga euh, président APE CM bi ak euh, bureau bi ñu and dem ci IA waxtaan ak mom, wax ko mbiri ñom api ñu appuyer ma fi ma jaaroon ñu jaar fa gëna wax wax ju gëna li wax be IA nangul ñuko yebal fi technicien technicien bi ñëw na ba natt na place bi euh, nee na mën na xaj na fi defar na plan bi defar na wanag yi fi mu war a nekk toilette seen bëgg-bëgg boobee nga xam ne kon moo di jëm ci taxawal beneen lycée franco arabe ci biir diwaanu Kaolack maa du andil ay jafe-jafe lycée franco arabe bu Sing Sing bi nga xamante ni kon saa su nekk kon ñi ngi nemmeeku li nga xam ne moo di lim ba fay dem ay ndongo dañuy wàññeeku Serigne Papa Niass moom mi nga xamante ni kon moo jitee kuréel gi tekkee waajuru ndongo yi nekkee ci seen franco arabe sam bu Kaolack di ci indi ay leeral ak i tontu parents yi nga xam ne seen loxo jotu leen gannaaw te bu lycée bi nekkee fii danañ mën a continuer ñu gis ne ah, jël lii mu xale yi continuer moo gën ñuy xeex-xeex boo xam ne eh, mën naa ñu bëri danañ si nekk ay victime ba leen si agsi lycée ba ñu dem bañ demee ba ñu see iya non seulement bi ñu koy bugg a def fab ay classique yóbbu ko fa dañu woo ñun dañu bañ mais bi ñu discuter ba ñu waxee li ñuy wax convaincre nañ ndax kenn du tabax ay bâtiment yu toll noonu mu nekk fi ñu koy ub ay doomi Sénégal nekk fi war a jàng te amuñ fu ñu jànge loolu jaaduwul ñu leen ñu nitam nag li ñuy bañ ngeen indi ko fi ba pare lycée bi tas ndax ka bañ ko defee dafa mujj dañ ñu ne déedéet loolu du am ndax lycée bi day continuer wante nag continuer bi mooy lan CM ben CM mo koy jox te CM bi sori na ñi fi mënu ñu fa dem mu ngi ko chaque année dégg nga li ko waxé téméri élève ay 45 ay dem te ñu sa des fi amone lycée ñu fi tok ñu dem gis iya wax ko ko mu ne ñu rek légui su fekkee na dana mëna nek nekk da ngeen am place ñu ne ko place amna na waaye lycée bii day continuer mu ne day continuer ñu ne ko nak pour mu continuer fo nga créer ay franco Arab. élémentaire ci gox boobu yooyu nga créaat beneen CM foofu nga xam ne élémentaire yooyu ñooy dundal CM boobu CM boobu di dundal lycée bi comme yeneen ñi nga xam ne yeneen franco yi ñooy dundal CM bi ñoom danañ ko mën a def wante nag ñun suñ doom yi duñ jàng ba at fii ñu leen di bàyyi ñuy ñuy ñuy sànq projet bi nga xam ne kon mu ngi jëm ci transformer cinq franco arabe sam ci lycée mixte nag li ko war a tabax koppar gi mu ngi toll ci ñeent fukki millions ak ñaar 42 millions Serigne Alioune Cissé di sàkku ci bon volonté yi ñu dugal ci seen loxo ndax mbir mi dañu ko soxla daar daar. plan bi nag euh, euh, li muy coûté euh, ñeent fukki millions la yu teg ñeent fukki millions la yu teg yoo xam ne fi mu ne nii bonne volonté bu bu ñu ko jox rek ñu commencé ko fi ne ndax état moom boo ko xaaree mën naa yàgg. moo tax ñu tàllal loxo ñëpp daal ku xam ne rek ba ngaa dimbale franco bi rek euh, tàllal nañ la loxo. bokkoon ci ñëwoon teeween ndajeb waxtaan wi Makhtar Fall président mouvement des élèves et étudiants franco arabes du Sénégal MEFAS ñoom nee li ñuy sàkku rek moo di ne lycée franco arabe boobee kon ñu fexe ba dafal leen fa li nga xam ne moo di faculté arabo islamique bootal ko nag ci université Cheikh Ibrahim Niass bi nga xam ne moo nekk foofee sax ci biir lycée ba. ñun en tant que MEFAS li proposé mooy comme que ñun. Euh, franco arabe enseignement bu bu spécifique la par rapport ak euh, contenu programme ki curriculum c'est-à-dire enseignement général mu ngi ci mais aussi il y a l'enseignement am na aussi li ñuy woowee drasa islamiya te gis nañu après le bac gisuñu kenn koo xam ne si mën na continuer def drasa drasa islamiya léegi pourquoi pas ñu jéem a créer benn faculté arabo islamique fii ci université Sine Saloum Alaaji Ibrahima Niass ba ko defee ne arabu islamique boo xam ne si lycée franco arabe suñu boobu dana ko mën jël su boobaa étudiant élève bi nga xam ne am na bac su bëggee continuer ci enseignement général mu continuer ko su bëggee continuer ci langue arabe mu continuer ko su bëggee continuer ci étude islamique mu def ko loolu yaakaar naa lu mën a nekk la parce que loolu moo doon tax kay formation bi nga xam ne si euh, élève bi am na ko ci élémentaire am ko ci collège am ko ci enseignement supérieur mun am choix wu def choix bu ko choix bu xamné choix bu large la actuellement ni réew mi amul ben faculté publique la wax nag je dis bien pile bo xamné arabo islamique la yakarna naa lycée franco euh, arabe mën nako jël université arabo islamique bi ma nga fa kon ñun méfas li ñuy prôné moy nañ ériger lycée franco arabe comme ñu defa fa ben faculté arabo islamique bo xam da fay dépendre ci université Cheikh Islam ala ibrahim Niass bu su boobaa li nga xam ne si moo lañ tabaxoon pour franco arabe franco arabe diko di ñak mën ci fàttali ci seen ndaje mi nag amal nañ ci ab di ay signature yoo xamante ni ñëpp ñu fi woon ñoo ko xaatim loolee kon di mandargaal ne askan wi ci boppam ñooy sàkko ñu soppi leen seen bile lycée mixte